fan yi benn ilimaan mu naan xale bu jigéen boo xam ne xamuñu ndeyam xamuñu baayam. Euh, wërës bu de valeur yi franchement. ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo xam ndeyam ak baayam. kan moo xam ndeyam ak bàyyam ñun yoon daane ci <laughs> ndey bàyyam bàyyi yonent bi sallallahu parce que maa dégg benn nit may wax ak moom benn mu naan ma yonent bi moo nu gën <laughs> man sama ndey ak sama bàyyi ñoo gën ñoo gën ndey ak bàyyi yonent bi ah. parce que man sama ndey ak sama bàyyi ci l'islam lañ judd ndeyam ak bàyyam judd wuñ déewuñ ci l'islam hmm. c'est Sénégal ñoo ñoo maanaam ñu c'est grave comment waaw bu ñu nekkee ci tàntu Seydina Muhammad ñun ñëpp ñun ñëpp Seydi Hadji Malick li ko may lii mooy respecter Seydina Muhammad la tarfa'u fawqa wala tajharu lahu ka jahri li baadin an taxbata wa antum yàlla nee na bu leen yëkkateeti seen kàddu ci kaw ci kaw rasulillahi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum buy biranteeg bul wax ak nit ñi buñ dee wax Seydina Muhammad déglul yàlla nee na yaa nga cay sànni say kàddu te yëguloo ni yaa ngay yàqule yàlla nañu yàlla musal ci yàqule Abdou Aziz yonent bi ku ko dégg wàcc sa baat ku ko dégg wàcc say baat xaw ma ana Pape Makhtar man mi doon waxtaan ca ca jàkka ja banaan Muhammad Muhammad ndeke góor gi jàkka ji soof na ko bu yàgg ma ñëw rek mu wax ko Pape Makhtar Pape amul sëñ Babacar amul ku muy sàllalul ko du Seydina Muhammad may wax mu naan Muhammad Muhammad rek ma ñëw ni ko papa mu ne ma déedéet bu mu ci dal nee ma Abdoul Aziz rek comme xëy yaa naan Mouhamad nee ma Abdoul Aziz bu ma waxati mukk papa eh, ñu dem ci dem ci dem ci wax rek wax rek pour laay biir rek la nit dana liggéey liggéey liggéey ba mu sotti rek mu yàqu yàlla ñu ci yàlla musal surtout jë jamono bi ñu toll terewuma nag kenn ko wax waaye nag fekke gunuroog wutee yàlla ñu ci yàlla musal bu borom seddoo nga séddu bu baaxee mu baax bu bonee mu bon moom rek ñu indil wax ji waaye ñun ñëpp ñëpp li ñu tax a jóg nañ fexe ba garder ko rek dara bañ cee yàqu kenn ku nekk yóbbaale tuyaa ba wacci summi ay bàkkaar yàlla nañ ko yàlla defal bu ngeen demee ci saar wi ma leen di wax ci laa tuqaddimu bayna yaday llahi wara wattaqu llaha inna allaha ya ayuha alladina amanu laa tarfacu fawqa sawti nnabi wala tajharu lahu bilqawli ka jahri li baadin an taxbata a wa antum Pape Diop di wax ak Serigne Baye wala Serigne Baye di wax ak Pape Diop rek yëkkati kàddu ku ko def ak Seydina Muhammad sa lépp yàqu wallahi Abdoul noonu la ko yàlla bëggee it waaw nit nag dana jum wala mu ñàkk xam def ci erreur yàlla nañ ko yàlla jéggal ñun ñëpp buñ deetee waxtaan ci yu demee nii rek ak ku mën a yor kaddu ak ku mën a yor kaddu ak fu kaddu mën a jógee du kañ kay wax lañuy déglu lañuy wax mu am solo alladina yastamiuna alqawla aw ilqaaila ah alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsanahu bu ko defee ñun ñëpp yal nañu yàlla boole jàppale yàlla kenn ku nekk li la tax a jóg yàlla la ko yàlla fajal waaye ñu garde loolu nag tabaarakallahu ngeen jéggal ma bu baax a baax